Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. تعالى وبركاته صافي ñu ngi naan dañu leen di siyaare bu baax di am mbégte di dalal Cheikh eh, Aline Badara Ndiaye ci fan yi gi mu indi ñu benn tomb bu am solo ñi ci kontaan lool te di ko ndokkeel ci safar bi ci mbokkeel képp ku nekk ci haq sabit ñu mëna waxtaan ak eh, di naka la dundalé magal ci touba ak feneen fu touba rek waaye di magal magal, di def magal. dëppale ko ak li di jangalem nga xam moy borom magal gi muy ahmad al Khadim.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 سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نوّر وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي برب تدبي tedd الحق ثابت والباطل زاهق di ñaan yàlla sa borom subhanahu wa taala turu eh, barab bu tedd bi sa borom yàlla na woon ak dëgg te nangu te saxal nu ci sun borom won ñu ladul dëgg ba ñu xàmmee ko mu defal nu caw féexu nu mën koo wattandiku noo ngi siyaare mboolem kilifa yu baax yi nga xam ne noo jiite jotaay bii eh, rawatina al imam eh, oustaz pam jaay mi nga xam ne jotaay yu mel nii moom moo koy jiite di ko encadré di sant saa borom subhaanahu wa bam nu mayee jotaay yi nu yàgg koo fekke yàlla may nu nu fekkewaat ko ba di ci fàttalante euh, ñoo ngi koy sant suñ borom subhaanahu wa taala ci loolu euh, mu mel ne euh, wóppa wi mooy thème bi nga xam ne moom la ñu tànn ne ko al oustaz Pape Ndiaye waxe léegi moo di Eh, temub eh, kayfiyatu ihya'i yawmi maggal fi tuba tibban li taalimi shaykh al qadim radiyallahu anhu noonu lañ ko tënke ci arab modi di gi nga xamne serigne touba radiyallahu anhu moko ko maggal goku naka lañ koy defé <coughs> muy tomb nak bo xamne am di solo Eh, jéggi na wax ndax ab jullit bokk na ca ay jafe-jafeem mooy muy def menn mbir te fekk mbir mi muy def xamu ko mépp mbir mooy def war nga caa dañ ak réer war nga caa fer ij war nga xam ne may def nangam la nangam moo ko tax a jóg bu dul loolu da ngay dox ci làmbatu ak di tañaxu rek di dem loolu boo ko defee loola baaxut borom ma ngay xas ña nga Euh, seen mbir luñ ko teg ci xam-xam waaye dañuy mel ne kuy làmbat rek yal na ci yàlla saa borom subhanahu wa musal kon loolu lañ fa seeni waxtaane màggal gi sëñ Tuubaa woote naka lañ koy defe ak yan lañ ca war a wattandiku ba nga xamee ne buñ jógee ci màggal gi danañu rafet njot ginnaaw boo xamee ne seetlu nañ ne ni ko borom bëggee woonu santaanee ko noona noonu daal ci zahir ñun defe nañ ko noonu ñaan borom bi moo mu nangu ko subhanahu wa taala li nga xam ne moo jiitu nag mooy nu xam ci tënk bu gàtt rek màggal gi lan moo ko waral màggal Tuubaa day dara waralu ko lu mooy ab jaamub yàlla muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu boo xam ne suñu borom dafa am liggéey bu mu ko santoon liggéey boo xam ne liggéey bu bari ay dég la liggéey bu naqaree def la waaye nag ci ko yàlla dimbaliwut suñ borom subhanahu wa téeñ ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam yan ko taxawu ko ba nga xamee ne liggéey ba defe na ko ca anam ga gën a rafet ba liggéey ba jeexee nag moom sëñ Tuubaa radiyallahu anhu ba suñ borom xamal ko ne ko liggéey bi day mat na léegi eh, ak fay rek moo ci des sëñ Tuubaa nag daan loolu day kon mat naa sant yàlla ndax ab jaam dafa néew doole dañuy wax albashariyatu tuassiru fi amali maxluux ab jaam nekk nekk nekk gam nekk mbindeef loolu day feeñ ci ay jëfam ay jëfam day faral di manqué sëñ Tuubaa foofu mu jàngale fi tawxiid ju rëy mooy xamle ne yow jaam bi amoo benn kàttan laa xawla wala quwwata illa billah kon nag bu la yàlla dimbalee nga doon def dara yàlla may la nga may la ca réussite may la ca nga kiilu ni ko wolof di waxee bul fëgg sa dënn mukk daan ne lii mënuma koo a ñàkk def ndax man jàmbaar laa bul ko ci sa xam-xam li ñuy wax al ujbu mooy naw sa naw sa bopp bul wax ne lii saa liggéeyu ndaaya waaw man day waaw léeg la tàggale ne la lii mënu woon ñàkk mel nii ndax sa sa sa nday moo ko liggéey déedéet déedéet waaye sëñ tubaa dafa geesu gisul ku dul boroomam moo tax mu ne woon huwa alladi lam awa gayruhu gayrahu wala arahu fi cheyin hada wa nawala huwa alladi lam ara gayrahu wala wa nawala man yàlla lépp yàlla laa cay gis moo tax mu geesu xam ne lii mu def bu ko mënee def rek ndimbalal boroomam la subhanahu wa taala ndax léppam xajoon na ci sëñ tubaa ci boppam moo ne jaxasoo gi mu jaxasoo tubaab yi rekki ngëm sax xajoon na ci moo tax nag mu ne kon na sant yàlla borom bi ndax suñ borom kat lépp lu mu la mën lu mu la defal mënoo koo fayee dara dara dara dara lu gën a rëy nga geestu xam ne lépp mooma mooy nga sant ko loolu moo ci gën a rëy mu ne kon day sant yàlla waaye sëñ Tuubaa mu ne moom day xeeb na jëmmi boppam ci sant yàlla moo tax mu ne kon damay woo mbooleem képp koo xam ne sama mbég sa mbég la nga santale ma yàlla saa borom subhanahu wa taala moom xeeb na boppam ci cant gi kon jëmmi màggal gi moom euh, ci tënk bu gàtt mën ngaa jàpp ne la cant gi jógee ak cant nag nekk daraja ju rëy ci daraja yi nga xam ne day dox diggante jaam ak subhanahu wa taala Euh, suñ borom subhanahu wa ci diine ji di diine islaam boo demee ci téeréem bi lim ci tagg wàllu cant ñi nga xam ne dañuy sant ak lam leen ci wax ak lam leen dikk loola mënee su koo lim nga dellu ci njàngale bi yonent bi alayhi salaam mu bari lool yaatu lool moom moom ak cant ak cant buñ koy tënk dañuy wax ne asukuru mooy irfaanu ni'ma wa izharuha wa sana'u biha lol manes na koko ko ak cant moy lan ñun ak cant dal modi ñu defal la ñek nga reconnaître ko waaw reconnaître na diw mi defal na ma ñek defal na ma ñek waye nak nga feñal ko waaw nga feñal ko suñ borom defal la xewal nga da ah, ma nga sant suñ borom de suñ borom defal na ma nangam defal na ma nangam wa in ta'uddu ni'matallahi moom laa tuhsuha waaye nag di ko feeñal rek kon di nëbbu xéewalu bu yàlla kooku dëgganut kooku dëgganut ba ca tege nag mooy wasanaa biha mooy nag nga di ko tagg nag ngay tudd loola di ko tagg wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis ngay ngay tudd loola waaw ngay tudd loola ah tabarkàlla saa borom day wax dëgg noo ngi sant may na njaboot njaboot dimbaleen njaboot gi ñu teg ko ci lislaam nangam nangam waaw tudd xéewal yàlla yi est-ce kon ashukur mooy loolu mooy irfaanu nicmati wa izhaaruha wa sanaau biha loolu ci tënk boo ñëwee ci alquranul karim dafa wax ne ak cant nag jëf lay doon kon toog fi nga toog naan alhamdulillah te jëfoo bu la yàlla mayee eh, alal yu bare bare bari kooko yor fi kurus naan alhamdulillah loola du ca doy ak cant cant ga mooy lan jëf lay doon mooy dangay ñaat ci alal yi di ko séddale ñi nga xam ne ñoo ko aajowoo yàlla bu la joxee rek daa bëgg nga bu la joxee lu ëpp sa wërsëg dalaa séddale loo ko la fi waxee kon loolu mooy cantug loola moo tax suñ borom subhanahu wa taala ne i'malu ala daawuda shukura wa xalilum min ibadiya shakur gis nga ala daawud mu ne jëf leen ngir sant nga xam gi moom jëf lay doon jëf leen ngir ngir suñ borom subhanahu wa yaram luy cant bi du yor su gurut naan alhamdulilah kese de cant bi mooy wér gu yaram bi nga jeexale ko ci topp yàlla sa borom subhanahu wa taala loola loolu mooy cant gi waaye nag doo dem di def lu la neex borom yor su gurus naan maa ngi sant déedéet kon ak cant jëf lay doon i'malu lay doon i'malu shukran jëf leen jëf ji nag ngeen jublu ci ak cant suñ borom daan ne eh, moo ne day li may defal ci jaam ñi jaam ñi li ma leen defal ci xéewal bari na de waaye ñu néew ñoo ma ciy sant آه، وخليل من عبادي الشكور كان تاكون يا آه، بريون دنيو نيو لنيو ودلو القرآن الكريم باتي سوين برام سبحانه وتعالى خبنانك بنتي جار جال ندخ لير الچنتك لو تي عجو تخنيو جو نوغ جم تتمبا واي في دنفي آه، دنفي جار جال بورم جي سوين برام سبحانه وتعالى تي القرآن داي وخنان ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم wa kaana allahu shakiran alima waaw boo ko doon firi ci wolof ci gàttal dafa mel ne suñ boroom day wax naan moom day bu fekkee yéen a ngi may sant awma benn intérêt ci di leen mbugal waaw yàlla lan la leen mbugalee yàlla du leen mën a mbugal du leen mbugal mukk ca mbaaxam nga li feek yéen a ngi yéen a ngi xéewal yi mu leen defal yéen a ngi koy sant sant cant gi nag day nekk ci jëf ak wax lay doon jëf ak wax nga dellu ci yeneen aaya mu ne wasa najzi wasa najzi shakirin waaw waaw santaa ko ne ñii sant a ñooña day dana mu leen fay waaye mu gën a leeral wax ji ci beneen aaya mu ne wasa yajzi llahu shakirin daal di andi nag daal di andi turam wasa yajzi daal ne allahu nga ne yàlla moo koy def suñ borom ci boppam nee na ñii sant ñi nga xam ne ay santkat lañu ñooñu maa leen di fayal saa bopp waaw yàlla ci boppam moo leen di moo leen di fay moo tax suñ tubaa wa anhu don ñaan boromam nan ko habli dawama shukri lil jinani bi ruhi wal jasadi wal janaani wa sun borom subhanahu wa taala mang may mang lay ñaan nga def ma ko xam damay saxo ak cant ba keroog may tabbi aljana lol nak na nek bi ruhi ma sant ci sama ruh wal jasadi naay sant ci sama jimm yaram wal janaani way naay sant ci ci sama xol kon ñetti xetu cant yoyep euh suñ tuba mi ngi koy ñaan ndax xam gi xam li nga xam ne moo ci nekk moo tax mu def bisub cant bi boo waxaat na feneen ne fataxta baaba shukri lii wan xalaqa baabu shikaayati la day muxlaqa suñ borom de yaa ma ubbil buntu cant tëjal ma buntu jàmbat waaw baabu shikaaya buntu jàmbat kooku tëj naa ko ba mu nekk ci géej gi nee na woon nasaxtu bi shukri shikaayatan fala ashku lahu durri fa durri afala waaw nee na ki tey Euh, jaay naa jàmbat jënd ko cant fu ma nar jàmbatati rek dama fay dugal ak cant dama koo folli nasoxtu la wax waaw nasoxtu bi sukri shikaayatam kon nag fala ashku lahu durri fa durri afala du ma jàmbatati mukk du ma jàmbatati mukk ndeysaan kon ak cant loolaa ca nekk moo tax sëñ tubaa indi yow mu sukkur bis boo xam da koo jagleel ak cant waaye cant boo xam ne boppam doyu ko ci moo tax mu woo ci mboolem jaami yàlla yi ñu ñëw santale ko boroomam subhanahu wa taala kon nag ndegam xam nañ ne bis bi bisu cant la suñ boroom moo defal jaamam xéewal moo ko defal ndimbal defal ko nasrun min allahi wa fatxun xarib moom it mu geestu gisul ku dul boroomam subhanahu wa mu jóg ngir sant ko kon cant goog yi naka lañ ko war a defee cant goog yi nga xam ne moom la sëñ Tuubaa woote naka lañ ko war a defee Euh, manees na koo def ay tomb manees naa wax ne li jiitu ci yow mi nga xam ne danga bëgg a jóge ci ab dëkk ne da ngay màggali wala yow mi nga xam ne sax mën naa am yàlla dogal na ne barab bi ñuy daje da faa dëkk muy jëmmi Tuubaa nga ne yow dañ laa war a fekk euh, wala boog muy koo xam ne sax moom barab bam nekk rek foofu la nekk di di màggal ndax màggal sëñ Tuubaa dane woon fu waay nekk rek fu waay mën a nekk rek euh, mën na faa nekk sant la ko yàlla boroomam subhanahu wa taala waaw bu mu naw gileem bu mu bu mu xeeb ginaar ndax yàlla loo koy defal bu réyee boo ko nawee mu tuuti waaye lu mu tuuti tuuti bu ko xeet ndax bu ko yàlla nangoo mooy lu kenn xamul nu muy toll ku mën a doon koo xam ne fas yéene ngaa màggal la jiitu ci la nga war def la nga war a def mooy rafetal sa yéene mooy tomb bu njëkk bi rafetalal sa yéene rafetalal sa yéene xam na yaa ngi def yaa ngi def genn ci eh, eh, genn ci xeeti jaamu yàlla yi gën a màgg yaa ngi ko ci yaa ngi koy def rafetalal sa yéene nga fas yéene lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci bis bu tedd boobu lu bokkut ak farata yi nga yéene ko ne loolu day maa ci yéene santale sëñ Tuubaa yàlla sunu borom subhanahu wa taala ndax farata yi moom kenn du ko moomale kenn ndax yàlla moo la ko digal waaye tabarruaat yi xeetu nawaafil yi eh, jëfi yiw yi yooya moom man nga ko def yéene yool ba ko la soob man nga julli ñaari rakka yéene ko sa maam ja faatu wala sa nangam man ngaa saraxa yéene ko keneen yéene ko yéene ko keneen kon jëfi coobare yi nga yéene ne mboolem loo ci def yaa ngi yéenee def jaamu yàlla gi tudd ak cant te di ci wuutu sëñ Tuubaa radiyallahu anhu di ko subhanahu wa taala lol nak dafa nek jafé jafé ci ñu bari ñu bare bare bari magal dañ ko jappé rek xeetu folklore xéeti euh eh, dal bu ñew xéetu xéet bo xam dal day ñew nga dal di sañté nga xam yow daanaka euh da nga gis ko xamné man na magali ba ñew ta bayiwul xel fànn gi muy yéene lol nak baaxut moy melni xobu garap nga xamné mom yifi yëfi dana rep rep kër kër nga dal di kër kër wu sa xoti wu sa nangam nangam daal di tàmbalee estati màggal bi nii nangam nangam bu kii jot nga daal di dugg wareelu demaat ñëwaat boo ñëwee doo nettali lu dul dalu nangam laa daloon bu dee njóobee lii euh, lii lañ reere lii lañ defe nangam kepp képp yam ca euh, wax dëgg yàlla kooku déggut kooku déggut sëñ Tuubaa am njàngaleem ne sëñ Tuubaa bëggee ku ni màggale kooku moom déggu ko te nag moo ci moo ci ëpp kon yéene ji moo ci war a jiitu saa borom subhanahu wa lim jàngal lim nu jàngal te jaare ko ci yonente bi alayhi salaam muy xadis boo xam ne dafa tënku muy innamal amalu binniyaat jëf yépp dafay aju rek ci yéene kon bu fekkee ne yaa ngi màggal màggal boo xam ne riirandoo la mën ngaa màggal ay at te doo ci am benn tuyaaba te jëfewoo la sëñ Tuubaa waxoon mooy yow santale woo ko yàlla boromam ndax li nga jëf dafa àndut ak yéene waaw jëf ma ngay takkoo ma ngay réye ca yéene waaw waykat bi nee na innal fawaida ala al aqaidi ku ñëw fasoo wëñ ga waaw ah, sa ñëw ba jagadi waaw loo mën a def te yéene lëlu ko rek yéene mooy fondation ba lum la lum du baax sëñ bi ci boppam ne la tafalu shay'an bi gayri izni ndax fal iznu shartun fi qabuli shay'in looy def na ca na ca am ndigal te ndigal loolee nga bàyyi ko xel ba ngay tàmbali eh, ndax boo ci xasee ba am ndigal rek loolu mooy wane ne suñ borom dana ko nangu sart la ci nu nangu ko sëñ tubaa radiallahu anhu ba muy wax sifaatu saadiqil muridi bi ixtisaar da caa bokkoon summa imtisaalu amrihi xaysu warat bokk na ca eh, dëgg dëgg ak taalibe mooy nga nangoo jëfe ndigal fa ndigal la rote kon sëñ tubaa santaane na màggal ndekam moo ko santaane war nañoo xool ba xam moom nan naka la ko santaanee nu jëfandikoo ko nu jëfandikoo ko kon côté boobu ñu bari bari dañ ciy sàggan yéene ji daal dañ koy dañ koy fàtte li nga xam ne noonu lañ war a màggale du lenn lu dul roy lu dul roy ki nga xam ne moo santaane lam ca lam ca defoon bu dee sëñ Tuubaa radiyallahu anhu moo xam dangaa dem ci nettali sëriñ Mawlaaye Buso radiyallahu anhu wa ardaahu ni mu ko nettalee moo xam ci sëriñ Balla Faali Jëng bi ko sëñ Tuubaa sante nga ne sëñ Habibou Mbacke nettali na ko ci waxtaan moom defoon ca RTS su ma juumut waxtaan wu ñu enregistré wu ñu enregistré ak lu mu mën a doon boo demee ci sëñ Mawlaay Bousso lan la wax dafa wax ne fa amarani bi dhabh al kharuf niyabatan anhu fi fi al yawm ala niyyati ta'zim taadimi al yawm wala boog niyabatan anhu fi dalika ala niyyati ta'zim dalika al yawm na famtasaltu nee na bokk na ci la ci sëñ def mooy béy wañ ko joxoon magam euh, di doomi sëñ bu Buso béy woon sëñ sëñ bi nekkoon damaa bëgg mu nekk am xaas ba mu ba mu ko defee am xar ba bisu di si safar ñëw sëñ Tuubaa dana ko demal nga defar ko demal nga rendi ko te wuutuma ci waaye nag loolu na ko def ngir lan yéene gis nga yéene jën jàngale woon mi ngi noonu na nga ci jublu yéene ma yéene sant yàlla saa borom subhanahu wa taala ci bis bu tedd bii kon gis nga yéene suñ Tuubaa ci boppam kon dafa yéene ba noppi jëf kon gis la moo xam ne cant jëf lay doon noonu la ko def lan la jëf moo di defar aw ñam ba mu sell nga leel ko jaame yàlla yi waaw wax nañ ne nit ku xiif nga jox ko benn tibb bu lekk rek moo gën tabax junni junni junni jàkk moo ko gën boo demee ci nettali sëriñ Balla Fally Dieng it noonu de noonu dong la ba mu ko yéeneloo ba mbooloo mi daje lan lañ lan lan lañ ca santaane Moy di def ay di def ay bernde ngir djublu ci sant borom bi subhanahu wa taala neena ñepp diko def di def ay ay mbabi teranga diko diko di ko yalla yi allahu akbar kon touba euh lepp lu muy def fofé rek lay fofé rek lay tegu duko ko du ko génn mënul ne euh, sëriñ fadilu mbàkke radiallahu anhu mënee suta leeral naka lañuy lu dul ne danoo dellu ci ay waxam loo xam ne moom noonu dañuy dañuy jottali rek dañuy dañuy nettali boo demee ci cassette bi nga xam ne cassette bu siiw la su mu juum ba léegi mi ngi ci youtube bi bi muy wootee màggal gi ak lu ci aju def discours boo xam ne discours bu am solo la dafa wax ne فلذلك أمرتكم أنا على وجه التجديد والتأكيد بالاجتماع في توبة المحروسة لتعظيم ذلك اليوم نينا آه، سنتوبا سنتانا جمو سنتانة مانجل جي موارخ تيجي من سنفا ديلو مباكة ما ديجل لين وعي نينا ديجل لين دوسما ديجل لين بقرة ما جي جبلو ييسال رك ديجلو سنتوبا لا رضي الله عنه على وجه التجديد والتأكيد أكثر من ديجل لين آه سيد ديجل لين غير لان غير مانجل جي نوي داجي في في توبا di ko fi defe ngir màggal bis boobee loolu suñ fallu mbàkke loo ci jublu mu ne taxarriyan li maradihi fi tatmimi binai ma asfasahu dama ci jublu rek ngir ñu nat ngir ñu dàkk ngir ndek ngërëmal sëñ tuba radiallahu anhu ngir tabax bi mu yëkkati woon fondement ko ñun ñu yëkkatil ko ko ma ñu mottalil ko ko tabax bi mooy lan mooy moom jëmmi bis bi jëmmi bis bi bis boo xam ne dañ ci sant suñ borom subhanahu wa taala waaye nag comme dañoo dem ba euh, jamono ak ngir mbooloo daje ci benn barab di ko def ak lam mën a jur lépp sëñ Fallou Mbacke moom woote ko nee na lam ci jublu nag mooy ndàkk bëggug sëñ Touba radiyallahu anhu ak lan ak li nga xam ne sëñ bi moo ko fondement woon nu jéem koo mottali fii tamit bi naa ima assasahu tabax bi mu fondement woon nu jéem koo yëkkati sëñ Fallou Mbacke ne raajiyan la fiihi nayla saadati daarayni maa nga yaakaar ne buñ defalee sëñ Touba loolu day da ngeen ci mën a ame texeg adduna ak àllaaxira da ngeen ci mën a amee texeg adduna ak texeg àllaaxira te loolu rek la ñuy wut waaye nag mu teg ca baat bu am solo bi charte waaw bi charte mu ne ci kaw ci kaw waaw bala ngeen a mën a am texeg adduna ak àllaaxira wala ngeen ci e, sëñ Tuubaa lam fondement ngeen koy mën a yékkati wala ngeen mën a nattale ngërëmam sëñ Tuubaa ji leen gërëm wala ngërëmal yàlla wala ngërëmal ku man a doon nee bi charte dafa am sartu de charte fa la sëñ Fallou Mbacke jaare jàngal lu jàngal lu kon naka la ñuy màggale naka lañuy ñuy màggale kon yow euh, mi nga xam ne da nga bëgg a jëfe jëfee ndigalul sëñ Touba li mu waxoon ne nañ ko santale yàlla boroomam sëñ Fallou Mbacke ngi nii day dib xalifaam di doomam woote màggal gi fii fi Touba euh, mën ngaa jàpp quarante cinq quarante sept mille neuf cent quarante sept sëñ Fallou Mbacke moomu andi na lu mat juróom ñaari mbir daana juróom ñaari mbir yi bu ngeen koy màggal màggale leen ko nii ci aw làmmiñam nee naa la kaset la boo xam ne bu jàppandi la juróom ñaari mbir yoo xam ne sëñ Fadilu Mbacke nee na kuy màggal noonu nga war a màggale waaye bam ne bi charte lu mu njëkk a tudd dane bi charti an laa yakuna fihi munkarun wala lahwun wala laib ñetti baat yooyu la andi nee na màggal gi de buñ koy santaane nañu góor góorlu ba yii buñ ci am bu njëkk bi mooy lan mooy munkar munkar mooy loo xam ne diine da ko xebet diine da koo rafetluwut yow mi màggal yi li sëñ Tuubaa santaane sëñ Fadilu Mbàkke sëñ Fadilu Mbàkke nee na mu yeesal ko mooy nee na ni ngay màggalee ba ni mu fiy jógee wala yow mi nga xamne yaay dalal gan yi bu mu am munkar bu lolu amul rek yow wax deug yalla euh, man nga ca genn <coughs> wa kon ku wax naan euh, magal gi kat dañoo dajale nit ñi dañ fay def nangam def ba ca kaaba ga sax suñ borom subhanahu wa taala mo ko wote waye am na ñu fay dem di def lenen ñoña su ba kon duñu wax ne suñ borom mo leen fi woo ñu daj déedéet moo leen fa dajale ñu def suñ borom bi mu wote dana defal leen na ku dem defoo loola sa responsabilité bopp la sëñ Fallou Mbacké bi mu wootee nee na bi charte an laa yakuna fiihi munkar waaw li ñu defee màggal gi bu ci dara loo xam ne diine da koy tere bu mu ci am munkar loolu nag moo xam ca jigéen ji nga xam ne buy waajal màggal moom jokku karaw la koy defee moo xam ne loolu munkar la wala soppi ak soppi bind bi ko yàlla bindoon moo xam ca xeesal bala wala teg ay yeneen wex yu ko yàlla bindewut wala ay xef wala yu lu mu a doon kon kooka sëñ Fallu Mbàkke woowu ko kooka day bu ñëwee loola mu def moo ko defal boppam waaye loola moom bokkul ci bokkul ci santaane bi yow mi nga xam ne booy màggal si man nga fee amaale ay randiwu di fa dajeek ay jigéen wala nga fay def nangam wala boo ngay làqatu ci ruq yi di tux wala di jëfandikoo euh, xeetu ñoon la ya ah yow ma day wax dëgg yàlla kenn woowu la <coughs> la ñaan ñiy gàmm ak ñiy raas dem yow ci ñiy raas dem nga ci ñiy raas dem nga bokk sëñ Fallu Mbàkke nee na bi charte an laa yakun fii munkar kooku dugg na ci munkar euh, bokk na ca yooya mooy nga góorgóorlu ba nga xamee ne ni ngay màggale lépp boo ko xoolee day dëppoog sunna sunna si yonante bi alayhi salaatu wasalaam day dëppoog sunna is jumia al xayru is jumia al xayru fi listibaai lu baax lépp mi ngi ci sunna wa jumia sarru fi libtidaahi lu bon lépp mi ngi ciy topp bidaa sëñ Tubaa léppam sunna la dane woon sax loolu moo fi indi min allaxwi taharat wa sunnatahu insha rabbi ubayinu da koo jiital sax wa sunnatahu maf'ulun bihi la moo xam ne da koo da koo da ko da koo da da koo jiital euh, mu wane ne moom sunna rek moo ko fi moo ko fi andi aqsamtu billahi inni linnabi abada xillun wa hibbun wa ma abaahu yaabaahu lu yonent bi bëgg képp laa bëgg lu mu bañ moom dong laa bañ waaw kon nag na nga góorgóor ba ni ngay màggale ba ni ngay ni nga fiy jóge lépp na dëppoog sunna yow mais dalal gan gi ni ngay dalal gan gi di waaj màggal ba ni mu jeexee lépp na tegu ci na tegu ci sunna ndax borom noonu la ko noonu la ko santaane kon bokk na ci ni nga xam ne noonu la ñuy màggale mooy nga góorgóorlu ba sa màggal bu mu am munkar bu mu am munkar bu fi màggal ñëw di fi def tëgg di fecc wala màggal goo xam ne dangay ngay rek dem barab nangam dem naa barab nangam Euh, kese bu fekkee li ngay dox ajul ci siyaar ajul ci jokk mbokk nag moo tax nuy wax <clears throat> na nga góorgóorlu ba na nga góorgóorlu ba jëmmi màggal gi bu fi toggoo benn coono boo xam ne daf lay yóbbe ci faat faat waxtu julli mbokk yi tedd yi euh, bari na koo xam ne ma ngay def dara defe ne ma ngi cay am tuyaaba fekk ma ngi cay jëlee musiba mu rëy rëy rëy moy nek ci nag yi di ray nagee ka toj lolou lu bax la waye boko defé bañu nodd ko fa ko dem julli ci lolou la borom santane señ touba radiyallahu anhu lolou la santane bi ni dund non la doon def li yoy bari na lool waye keroog ba nga xam dafa delu ci boromam bañ koy boromam mom señ touba radiyallahu anhu bañ koy defar bam mu ñu nodd gis nga la señ bakki bu sa waxon ñu daldi di dagg julli ga bàyyi ko fa bàyyi ko mom bàyyi ko señ touba radiyallahu anhu dem julli ci ndax mom lolou la santane won doo ko ñëwaat kon nag di nekk ci baas yi di gas pax mi wala ngay def nangam ba defe na loolu nga nekk ngant la ci julli déedéet dee noddee bàyyi fa loola suñ tubaa daa wax ne julli nay yàq te bu ko dara yàq na yàq mooy programme bu mu la fekk boobu na yàq moom julli nag bu dara yàq moom mu laan war naa julli waaye damaa nekk ci damaa xat naa xaar bu mu noppee raxasu yow jigéen ji togg sa waaju ak lu mu mën a doon loo ko mën a def tudde ko liggéeyal sëñ tuubaa buñ noddee sëñ tuubaa yoonam nekkatul ca loola <clears throat> xam nga moom bu ko fekkee woon boo nekkee ca loola euh, bàyyi julli gi waxuma sax nag nga faat ko maanaam bàyyi julli gi ca mbooloo ma rek nga xam ne da nga naaxaar ba ci kanam ndax ña doon ñam ñam tasoon sàkket ba ñooña faatuñ waxtu julli de dañoo àndut ak mbooloo mi dong dañoo àndut ak mbooloo mi wan mi azima danbi lil muaxari xata tafutuhu bila usrin durri nee na képp koo xam ne dafa sàggan ba faat waxtu julli te amul benn ngant nee na kooka day bàkkaar bu rëy ñeel na ko kon sëñ Tuubaa santul kenn nga di ko jëfal dara lu man a doon loo xam ne da nga cay da nga cay gàddoo bàkkaar da nga cay gàddoo bàkkaar la taa'ata lil maxluuq fi ma'siyatil xaaliq ab jaam kenn du ko topp bay moom bay may borom bi kon bay mooy borom bi subhaanahu wa taala kon bokk na ci li mat a wattandiku mooy nekk ci màggal gi dogoo eh, coono yi ne ca baas ba ne ca nàngam wax dëgg yàlla ne ca bernde ya lu man a doon ba fàtte waxtu waxtu waxtu julli bu julli jotee da nga am fulla ju toll ne dagg programme bépp ba la boole gan yéen nga soññu leen sa kem ah bisimilah ñu waaj julli dugg leen saal de bay dugg leen jàpp satala yaa nga ne waaye am ay gan rek nag bàyyi leen noonu ñu toog duñ julli duñ def dara ah, ca dëgg-dëgg loola woote naag la sëñ tubaa jàngale yow na ko gan sa kam kàttan nag nanguñ koo def alhamdulilah nga xam sa jaan wa waaye yow bu leen may occasion waaw dalal leen fenn wala nga yóbbu leen ca kaw xam ne ñii duñ jëkkër jabar nga bàyyi leen fa lu ne lu ne xacca loola ëpp naa def kon loo bëgg-bëgg gan ñu naan gan buur la déedéet waaw déedéet Euh, dubur boo xam ne dañ koy may nag muy faat waxtu julli gan goo xam danaa man damaa bëgg a tux nga dugg duggal ci salle de bain yi kooku yow complice nga yow complice nga noonu kenn du ko màggale bokk na ca suñu fadilu mbàkke li mu wax ne sa màggal bu am munkar bokk na ca munkar mooy yow jigéen ji wala yow góor ji ngay sañse ngir koo xam ne léwu la nga sañse ba jekk ngir bokkoo woon koo xam ne moom léwagu la kii ñu tuddee ajnabi wala ajnabiya waaw wala yow góor gi daana yow sa màggal mu loolu rek moo la tax a magal dem barab nangam mel koy def tourisme ah, bari na ñoo xam ne aj màkka koy def dañuy melne euh, koy def tourisme koku mom euh, nax sa bop la loolu moo amul njariñ ndax ñoñu moy ñi nga xamne ne dañoo yene wut wala ma tambal won amuñu amuñu yene ay solo ba jek lu ne nga def ko te yow amoo jenn yene lu dul fas sañ sa rek sañ sañse bobal nga di ci biigal goor goo xamne ne la sax ah, koku bok na ca bok na ca mun ya bok na ca kar yi sañ Fallu mbake wax boo xamne siwna siiw na mooy ngistal waaw yow mii màggal wattandikul ngistal ngistal nag ñu bari fañ koy defee mooy yañ def nga xam dañ ko war a def ngir jëmme yàlla ñu caméra ko ba mu jekk di ko publier di ko wane léeg jigéen ñoo koy def waaw wax dëgg yàlla rey sam xar wala say nag togg ko ba mu jekk defar nangam nangam nangam mel la koy jongante caméra ko ba jekk waaw ne suñ màggale nii nii lañ def def nañ nangam rey nañ ñaari nag nangam waaw xanaa yàlla taxut xanaa xanaa xanaa yàlla taxut xanaa yàlla taxut mhm. kon def dara ba noppi di ko won di ko di ko wane ah, loolu moom loolu baaxut loolu kenn du ko def ak jaamu yàlla boo ko defee ba noppi sellal ko rek kon loolu munkar la eh, eh, ngistal yonent bi dana woon bokkaale bu ndaw la lañ ci yàlla saa borom subhanahu wa taala musal kon yooyu yëpp yiimalim ak mboolem loo xam ne dëpp wut ak diine loolu sëñ bi ba muy woote wootewul loola képp koo def sa mbirum bopp la képp koo def sa mbirum bopp bu ñuy wax nag nañu wax kooka waaye màggal gi kat nangam nangam diw lam def nangam kooka wax dëgg yàlla ki ka woote lam wax leer na nañ ñi ni ma ko misaale rek suñ borom ba muy woote aj màkka ak na yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale xuzu anni manasikakum waaja dem fa def ak njóobeen dem di fa leneen wax dëgg yàlla loola bu ko kenn taxal naan suñ borom woote wala nangam déedéet waaw ki woote bu fekkee li mu woote leer na ku fa nekk leneen ah, kooka nag wala taziru waziratun wisra uxra euh, suñ fadilu mbàkke radiallahu anhu bim ne bi charte an laa yakuna fii munkarun da cee teg wala lahwun wala laibun loolu nag moo bari lool moo bari lool mu ne li ñuy tudde am fox ak i caaxaan am fox ak i caaxaan nee na loolu tamit bokkul ci màggal gi moom suñ fadilu mbàkke loola nag léegi xam naa euh, mooy li xew léegi waaw mooy daal tendance bi ndax màggal bi lépp tendance lañ koy def def ko mu nekk xeetu tourisme Euh, xeetu foto wu màggal gi jub jubsee ñuy indi ay wax yu xoromu euh, nga xam ne ñu ci bari waxi lekk euh, màggal ga da naan da nga lekk lii da nga def nangam danga def nangam duñ bàyyi xel lan la ci borom santaane woon ak lu mu ca bëggoon ak jaamu yàlla gi jaamu yàlla gii di cant mooy lan ñoom moom ci côté boobu rek lañuy la ñuy wax kon fox ak caaxaan xeetu tëgg xeetu am jaxasoo xeetu mboolem lu mën a doon nee na wala lahwun wala laib kon loolu moom da cee war a génn da ci war a génn ba set mooy xeetu bës yeeg euh, mboolem yu ci yu ci bokk rek yu ci bokk yi nga xam dafa xew ci jamono yooyu bokkul ci màggal gi mooy lu mat a bàyyi xel la léegi nag boo waxee ne boo nee bul def lii da nga naan defal lii sëñ Fadilu Mbàkke bim ne deesul màggalee nii deesul màggalee nii kon warees na koo laaj ne ko alee kon nan lañ war a màggale man mi nga xam ne bëgg naa màggal am naa yéene ju sell nañ ma ko jàngale woon ñëw naa Touba wala boog maa nga France ga ma nekk wala maa nga Dakar wala maa nga barab ba ma nekk barab boo nekk mën nga fee sante borom bi subhanahu wa taala <clears throat> waaw kon màggal gi moom man lan laa war a def exactement donte nag lépp lu baax loo def day dugg ci ak cant waaye sëñ Fadilu Mbàkke tudd na ne woon naa ne tudd na juróom-ñaari mbir juróom-ñaari mbir ba ca njëkk mooy bii sëñ Fadilu Mbàkke nee na bal azimuhu bi tilawati alqurani وذكر الله تعالى بأنواعه وقراءة الخصائد وإطعام الطعام لليتامى والمساكين وصلة الرحم وزيارة الصالحين وما جرى مجراها الله أكبر أكبر سيد فلو باكي نينا بوي مغل مغل كي ما يوخ بو ماني بو لي ييب باخنا بو ماني بو لي يين نينا نغا مغل سانتي لي santale seigne touba borom subhanahu wa ta'ala ci njangum alquran moy ben njangum alquran mo xam kamil ngay jang lo ca man rek faqra'u ma tayassara min alquran bokk na mbolem lu ñuy genn ci lamiñ alquran mo ca gëna reey gën ca gën ca gën ca tedd seigne touba sax radiyallahu anhu neena karamati kitabu man rafa'ani sama kiman deug koku bëgg xam dang may dangay xol sa digënté ak alquran allahu akbar kitaabun bi narju min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa uxra min alkarami lu ñuy yaakaar rek ci alxuraan lañ koy yaakaare lu ñuy ragal ci moom lañ koy la ñuy yaakaare yàlla musal ñu ci ñaareel ba sëñ Fadul Mbàkke nee na wa zikrillahi taala bi anwaayi man ngaa màggal ci tudd yàlla saa borom subhanahu wa taala alxuraan tudd yàlla la moo ci gën a rëy sax yeneen xeetu tudd yàlla yi na lool moo xam salaatu ala nabi ngay def loo mën a def da nga yéene ci sant la yàlla sant sant yàlla ku wóoru ji sëñ Tuubaa radiyallahu anhu kooka yaa ngay màggal moo tax bi anwaahi ci mboolem xeetu tudd yàlla yi na ñetteel ba nee na ak ak njàngum xasiida xasiida yi nga xam ne suñ borom subhaanahu wa la ci sëñ Tuubaa di tagg di feeñal tawxiidam di feeñal li ñu ko war a wagare di ci tagg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di feeñal ay jikkoom yi ñu ko mën a roye waaw moom yonent bi salaa wasalaam di feeñal ay jikkoom di ko tagg ci ay mbaaxam di ci tagg saxaaba yi ah xéewal ko yàlla defal mu ko cee sant de yooyu nee na nga di ko jàng yéene cee màggal kooko ci màggal gi la bokk ba ca tege nee na nga waajal ay ñam ba mu sell nga sellal sa yéene xool ñi nga xam ne ñooy jiriñ yeeg miskin yi ñi néew doole nga di leen ko jox waaw nit ñi nag daa mel ne euh, berneel ñi am ci lañ gën a sawar berneel ñi amul waaw da koo xam moo tax yow booy màggal del bàyyi xel leen rek ndeysaan doxandéem yi nga xam ne dañu ñëw nekk sa buntu kër waaye gan ñi nga xam ne dañuy ñëw ñu ci bari nga xam ne mën nañ seen bopp nga jël jël leen ñami waaw léeg ñu caméra ko euh, dégg nga wane yoo xam ne kenn xamul nu mu toll waaye daanaka dañ koy séddoo séddoowaat seen biir rek dañ koy séddoowaat seen biir te boo demee ci li wër dëkk bi bari na ñoo xam ne ndeysaan ñu ñàkk lañu ñu néew dool lañu ñu mat a dimbale lañu bu fekkee fekk nga dawal ko fas boo xam ne mi ngi nekk buntu kër deexa woo waaw bul yem rek ci ñi nga xam ne sa gan yi bopp lañ képp koo xam ne génn nga ci biti gis gis ne kii kat añut wala nangam kooku da nga koy woo da koy woo kon ñoo ñoo ci gën a yey kon bokk na ci kii def loolu kooku moom mi ngi mi ngi màggal waaye la ma waxoon nag nga sellal ko innama nutimukum li wajhillah waaw kooku da caa baax nga sellal ko ñam yi ngay joxe nga di ko joxe nga jimbi yàlla waaye loo xam ne nga koy caméra wane ko wax dëgg yàlla ak di ca ndamu loola nag baaxatut loolu baaxatut ak nena neena wasilatu rahimi ak jokku mbokk waaw jimmi magal nga jokku mbokk xam nga fi ay kërëm mbokk nga goru ba dal fe fexe ba ziar ke fexe ba ta def ko rek ngir jimmi yalla def ko rek ngir jimmi yalla ndax jokk mbokk suñu borom subhanahu wa taala moko diglé ba noppi ci ñinga xamne ñokay ñokay ñokay ñokay dag koy kon jokk mbokk suñ fadlu mbàkke neena ci magal gi la bokk ba ca tege ak siyaare gañu bax ni mo xam ñi nga xam ne dañoo nga siyaare leen seen wala ñi nga xam dañuy dundu ni ñu baax ñe worom xam-xam yeeg ñep kenn ku nek nga dox ba ag fa mom am ci yene ju sel te ba ngay départ yene da nga bëgg a ndax ñom kat diine yalla gi ñom ño fi wootu yonent bi alayhi salatu wasalam al ulama warathatul anbiya ndeysaan al ulama warathatul anbiya sëñ tuba radiallahu anhu neena na ci liggéeyal alquran lañ koy wa waye waaye su ko donno ci xaaliss bu fi baye nangam nangam nangam nangam nangam déedéet Eh, foofu foofu lañ koy doon kanzil kitaabu wal xadiisu wal eh, laa jamxu fiddatin wala jamxu zahab déedéet waaw ah, dajale ay alal ak yooyu moom du sama denc kon gaañu baax ñooñi nga dem di leen siyaara kooka yaa ngi ci màggal gi sëñ Fallu Mbàkke bi mu limee nag juróom benn yi mu tëje ko lu am solo loo xam dafa tënk lépp nee na wama jara majraha ak yu nuroog yii wama ak lépp loo xam ne jaraa dafa daw majraha dawukaay yii rek maanaam lu nuroog yii loo xam daal xeetoo naag jàng alquran ndax bi ne jàng alquran euh, lépp lu bëri ci biir boo dee tudd yàlla lépp ci biir mboolem lu nuru moom boo dee jàng xasida lu nuroog moom ak moom ci biir léele aw ñam ak lu nuroog moom jokk mbokk ak lépp lu nuroog moom siyaara nit ñu baax ñi ak lu nuroog ndax yu baax yi kenn du ko mënta lim kon daal lépp loo xam ne day dugg ci cadre l'islam l'islam ne lii lu baax la loola man nga koo man nga koo màggale waaye yii nag la ci suñu fadilu mbàkke radiyallahu tudd kon loolu la sëñ Fadilu Mbàkke indi wax ne na ngeen ko màggalee nii sëñ Tuubaa radiyallaahu anhu ba ca gàmmu ga danoon taasimuhu bi sunna waaw taasimuhu bi sunnati yaquduna lil jannati màggal ko teg ko ci sunna kooku daal ci la ñu mën a amee xéewal gii nga xam ne mooy xéewalu fayug yàlla bu màgg ka te moo di ajana sëñ Alaaji Maalik Si alaa azimoo laylata laylal wilaadati xisbatan waaye ida lam yakun naxwal xaraami ak nuróog lii waaw ñoom ñëpp benn lañu seen seeni wax seeni wax benn la kon lepp luñu wote wala ñu santane ko nun ñoo koy yàq ñoo ca dugal ci bokut ba tax ku ne yep yep ñu waye ñom day ah, ca deug deug lañu santane ko ca yam ah, ca deug deug lu rafet rek nga ca nga ca mën gis waye li seigne fadilu mbàkke wax ne na ngeen magal ci jang alquran tuddu yalla jang xasiid xasiida defar ay berna joxe ko ngir yim yalla ta jox diko jox ñu neew doole fi mom dafa tuddu ñoño waaw ñi neew doole ak ñi nga xamne ay jirim lañu ndaysan waaw jokk ci mbokk siyaare ci gañu baax li day am na lu muy tekkale day fekk na ne ñi nga xam ne dañuy wax naan màggal daal moom ak noos la euh, moom li may jariñ mooy moom lekk naan dégg loolu rek lay jariñ loolu wax ju yàqu la suñ Fadilu moom dafa mel ne wax jii mu indi dàqoo na ak wax jooja déedéet doo loolu rek la mbal ci lislaam sax amut loolu lislaam amut bis boo xam ne bisu noos rek la day déedéet ba ci tabaski yee kori yi nga xam ne sax da koo nuru da koo nuru bu demee ca xutba sëñ Tuubaa hasa yow mu yow mu aklin suur bi nga xam ne dafa neex njóome ni lool waaye nag sëñ lu mu ca teg dafa wax ne na ngeen ci sant yàlla te na ngeen na ngeen ci takkook li li leen yàlla tànnal te xam ne lam leen tànnal loola ci la lépp nekk waaw waaw ci la lépp nekk mooy njub gëm leen tànnal ak la yonent bi sallallahu alayhi jàngale waaye nah, du rek eh, bis ak lekk lekk naan képp la déedéet ba ci bisu koy yeeg tabaski yi eh, booy jàng téere fi xëy dañ naan la sopp nañu nga dundal guddi ya waaw kon gis nga du du du lekk ak naan kese loolu amu ci lislaam islam bis boo xam ne moom noos rek la nga ne bakkan bakkan kese la déedéet islam bis bu mu woote dëgg la bakkan bi mën naa dund yaram bi mën naa dund waaye faaw mu dugal ci nag ruuga ndax ruu rek mooy loo xam ne moo am solo kon mbokk yi tedd yi manees na eh, mën nañoo wàccee suñu kàddu foofu ci liñ bëggoon a indi muy naka lañ war a màggale ci diggante yéene ja nga xam ne ñu bari dañ koy fàtte yéene santle suñ Tuubaa boroomam subhaanahu wa taala ci mboolem xeetu jëf yu baax yi yu mën a doon waaye jéem ko caa roy ca nam ko doon defe waaye jéem a eh, fexe ba nii suñ Fadilu Mbàkke mi nga xam ne moo yeesal màggal gi bañ andi ko tuuba discours bi nga xamne mom la santane won le bu ca munkar am bu ca lahu am bu ca laib am dara lu lislaam di xebet bëggul mu feeñ ca lu nuru fo ak xaan bëggul mu feeñ ca ko daali jangale ne li lañu santane ñu santane day kep ku ko jëfé dañ ci am tuyaa ba ju reuy waye ku ko wut nak sa bop rek ngay lor yalla sa borom dimbalinu ba ni suñu fadilu mbacke jangale ko ñu doxé nona ta baña Euh, bokk ci ñi nga xam ne moom euh, dañuy kër kër rek ànd ak mbooloo mi luñ def ñu def ko wëndiir wëndiir ba ñëwaat te la la tax a jóg xamoo ko ku ñu la bu ñu la tàllalee micro ne la sëñ bi màggal si nga ne waa ñu la waa màggal ko lu ko sabab ak luñ ca santaane doo xam dara da def defen daal ak feet la koo xam ne da ngay ñëw màggal gi macha allah neex na boo noppee estati wane say photo dem ba ci jumaa ja tàllal say loxo barab boo dem dem photo wu fa sëriñ booy siyaare ngir wane ne man nii laa màggale euh, te loolu nag boroomam ci wote bis bi moom santaaniwul loolu duxutoon ci daray loo xam ne day dugg ci wàllu ngistal moom la suñ borom waxoon rek waxoon rek faduullaha muxlisan lahu diin nañ jaamu yàlla te sellal ko wa maa umiru illa li yabudullaha muxlisina lahu diin yàlla ne na santa santuñu leen lu dut ngeen jaamu borom bi subhanahu wa taala waaye rek sellal ga da ca am solo yàlla noonu yàlla dimbali ba nu mën koo sellal nu fekkee màggal gi te weesu ko mu yàgg nu fekk اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم لب لو جوك تي نيمبال سون بوروم لا لو تي مانكي ولا ليروت ولا ماتوت ولا تي اي نجومته ماتا ديك دومو ادم لا ان اريد الا الاصلاح ما وما توفيقي الا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وسلم